nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci sunu revue de presse teel si kaasu kafe nga guux bala ngay naan bay si mbaleex wax la li xew ci riimaas kono sunu gaal gi yëgle gi ne démb sàndaga toj na wée tëtëtët jàmmaarloo bu metti te fatta te moo fa am ci diggante ñi nga xamante ne ñoo di ambulanmaan yi ñi yor tablier di jaay yëgle gi naan man ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa agents municipaux ba yëglekaay gi naan man metti woon na kay taroon na wal fajri quotidien yëgle kaay naan man déguerpissement yi nga xamante ni moom la ñuy amal ci marché yi ak marchand ambulant yi ci jëmi boppam xam nga lu mu bombe à retardement violent boo xamante ne à tout moment mën naa yëngal réew mi fitne de kenn du ko yee yëgle gi naan maan démb kay dënd yi tàng na xol yi bon na bés bi le naan maan waa Dakar Plateau ñoo leen fa fekk ni leen da di jóg taabul yee yéeg ñi nga xamante ñooy wër di ambulant ma ni kenn du des kenn du jaay ci li nga xamante ni moo di territoire mbaab tëli ubbil yéene kaay bi ambulant maan ya taxaw nag dëggal seen bopp tax coow am juddu kay coow di koo dippe ñun

ma ji yëglekaay gi naan maan jàmm mujj na am ba ñi nga xamante ne ñoo di ambulant maan ñoom sa gat sa gu saf sàpp gu metti la si ne meeku démb fa Sandaga vox populi yëglekaay naan maan daje bi nga xamante ni moom la ñii di marchand ambulant yi tablier yi daje ak ñi nga xamante ñoo di waa Dakar Plateau xeex tax na nag mu bëri ay blessure lool laa la wax arrestation yi jàpp nañ fa ñu bari kay ñoom marchand ambulant yi nag interpellé ñi nga xamante ne ñoo di autorité yi yees yi ci réew askanu sunu gaal naan ñun bañu ñoo jóge mbedd mi waaye lii sunu problème mooy ana fan yóbbu buñ jógee ci mbedd mi faaw nu xam fu nu jëm laataa ñuy jóg nag ñi nga xamante ne ñoo di njiit yu yees yi lee li nga xamante moom la ñuy def bokkut ak projet bi nga xam ne moom lañ ñu tàllaloon projet buñ ñu jaayandu lii de dañ leen a voteel déewul nii lii lañ ñu a remercier ko wax nay leer vox populaire ko bind ñoom ci seen jëmi bopp ba tey a daj seen digganteeg njiitum réew mi fi woon di Macky Sall te dëgg dëgg du lii vox publique naan man Jibi Jàllo ma nga xamante ne mooy préfet plateau yëkkati na ay kàddu te naan leen kaay ñu wax leen nag nan ko waxtaane nag lépp loo xamante ne nag accepté wuñ ko ci réew mi askanu sunu gaal nu ko fi tere kenn mënu ko fee soutenu nag def bu nu jëmee ci bara de fer ko mbiicoo ko mbaaloo ma ne liy tooy ci yéen lay jóge yéen ay ba leer te mooy quotidien yëgle kaay indil ko fi mu toll nii tembe kaay am 15 ans ba am 35 vacances cinquante pour cent yëpp dañuy di taxawaalu dara liggéeyunu ko ay chômeur lañu may dem témoin ni ma taxawal waxal ci gestion des finances publiques yi lée le témoin quotidien sampub di laaj ana lan moo tax régime Macky Sall bi fi woon daa di laaj échoué kat xoolal niveau d'endettement bi bor ci jëmi boppam élevé ba àgg ci quatorze milliards ci budget record boo xamante ni montant ba sept la woon te taxul mu réussir seetal ma lii dafay yëgle kaay naan man xawma lu Sénégal réussir na ko xoolal plus de 763 la mobilisé diggante ba lépp ci leeral gox goxaan yi gox yi wal fajri quotidien yëgle kaay naan man nañ wax ci tey déclaration patrimoine gi ubbil yéen kaay bi Sonko ci jëmi boppam ma ngay wax ay gaam ñu gaaw Sonko presse ses bés bi la jour yëgle kaay naan man Sonko sans gaaw PM ma ci jëmi boppam ma ngay demande mboole seen ministre yi bilan des li mu bëgg a moo di ministre yi ci jëmi xamante ne moom la am ci gouvernement eh, tëtëtë ndekete lu ne rek lu ne rek xale yi ñemee nañ ko ubbil yéene kaay bi ci baccalauréat bi l'observateur yégle kaay naan maan am na ci ñoon seen groupe whatsapp la ñu créé de tuddee ko samp rek waaye waaye ñi ko créé mooy candidat yi ubbil yégle kaay bi lee Dakar presse yégle kaay naan maan fraude au baccalauréat ñeent nouveau bachelier ak benn candidat boo xamante ni deuxième tour la jàll ñëpp la ñu jàpp cakaneel ubbil yéene kaay bi tere tere mu të bàyyil mu gis teral quotidien yégle kaay naan maan ñii lañ leen tere lay mooy kaso mooy yi nga xamante ne ñoo nekk askanu sunu gaal ñun leen wàññ na du dund gi ñun lànk laa la wax ubbil yéenekaay bi jàpp nañ lu tolloog mbaa sax lu ëpp juróomi téeméeri commerçant Theresa Ngom Ndakaaru Njaay Jal Jóob ñoom nag lañ leen di toppe du leen lu dul ñàkk topp li nga xamante moo di prix bi gouvernement ngi joxe wàññi nanu kay doo wàññ yenn yi daal ca dëgg-dëgg bëgg bénéfice jaru ko turbine yëgle kaay naan man ngoyeti nan jàppati nan li nga xamante moo di aw dorog cocaïne waaja ñu ngooy ca ku fentin yëgle kaay gi naan man moom ci jëmi boppam moo doon agressé ko violent jigéen ñi mboole seen ñi nga xamante ñoo taxaw ni waaji agressé ne leen ku ci ñëw ku ci ne ci ñoom am nga aw blessure ca saw bopp ndax waaji ci jëmi boppam ngannaay la mu yoroon da la koy riig ci bopp soog la agressé moo taxit nga nañ ko libération yëgle kaay naan man am na keneen ku nu ngooy ndaw si nag la tax nu ngooy ko yëgle kaay gi naan tukki na ca mbir mu ni mel yaay ci jëmmi boppam aloola wuyoo ubbil yéenekaay bi 18 ans dong la am di gone moom ci jëmmi boppam da koo fàtte ci robooru bassin ba ay waay seetal lii bi mu yégée ni nag def na jéyee yëglekaay gi naan man tiit la def tax mu daal di jéem a simuler réer gi naan réer na sama doom réer na réer na ba noppi ni patak moom nag waxu ko kenn laa la wax joyandoo ko yuuxoog ñépp laa wax ginnaaw bi ñu découvrir nag li nga xamante ni moom moo di néewub doomam jilee di xale am 8 mois ca la waxee ni lépp mooma lu jin njaaga moo ko fàtte bassin ba ñu ngoy ko toppee ko homicide involontaire ca dëgg-dëgg mbir mu yéeme la ma ne ko moom koy doy na waar ëpp naw tool ku naan tafaatin daa ragal Balla Gaye 2 da ngaa dégluwul tafaatin tribune sport yëgle naan maan wax na de nee bu ma kenn wax waxi ragal mukk du ma ko def Balla Gaye 2 ragalu ma ko tey ragalu ma ko suba te ngeen di xam ne ragalu ko dëgg arbitre daa sifflé Angleterre Espagne final bu mucc ayib ubbil yéene kaay bi ko waral mariage divorce condition de vie des ménages moom kay mbir mi metti na yëgle kaay gi naan man fii ci réew mi askan sunu gaal nemmeeku nañ ne célibataire yi saa su nekk dañuy gën di yokk laa wax te nag kaay ma wax la nag rawatina jigéen ñi ku ci dem ba am 40 jàpp 44 ans yi da ngay divorce foo jëm xanaa da ngay toog noonu rek <laughs> ku lay takkaat xalaa nga yor alal ci dëkk bii doy na waar si laati bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba sama ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jaageen jëf jërë ngeen jëf jaageen jëf mbokk yee xarit yeeg dëkkandoo moo yow bàyyi ma ah yow bàyyi ma réew mu askanu sunu kii jigéen ju fi yor alal amal juróom fukki at divorcé <laughs> ah faw mu am ku ay bàyyi ma maa ngi nuyu ñëpp jox ñëpp seen wàccuwaay di leen kontaane nag waaw di kontaan ci képp koo xamante ne yaa ngi nuy bàyyi xel foo mën a nekk ak fu man di doon di nu déglu ñu ngi lay biggee di la jox sa waaye di la kontaane di la bëggee waaw kay di la bëggee wala asim di la bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ah mun di coowul coowul marchand ambulant mun di mun di ah man daal mi ngi noonu drogue bi naan ci réew mi lan ko di dorog moom moom ah waaye tamit bu ma ñëwee wax ci mariage yi man dama comprendre ba dafa am loo xamante ni daf may rëcc quoi mënu ma comprendre nekkal nit di marié ak moom ngeen bëggante di bëggante ba def plus de cinq ans wala dix ans bëgg a tas man loolu laa mënul comprendre tas kay ca da ngay def un un bu doxut nga dapp waaye nga def un an doxul nga nefa rek nefa nefa nefa nefa ba mat dix ans nga ne da ngay bàyyi. ami doom ah nooy def say doom bàyyi jàmbur yor leen wala yaay jàmbur yor leen yow bu dee yow yaay seen yaay la la ci waroon lépp doo ko man ndax tàggoo nga ak seen baay ah goney bon taxawaalu bu dee du gone yoo xamante ni danoo am na kilifa wala mag gu ne ca kër ga des fa musiba day am musiba mbaaba kumba mu kenn dul xam fu ñu koy nitilee rek ah kon sëy am na fu muy toll mbëggeel desatu fa ngor a fay des waaye nag ngor nag ci ci ci ku ku jara ngoranteel nag ndax tamit damay wax léeg-léeg jigéen mu am 18 ans mu am 70 ans moo ci am xol yor di bëgg bul dóor pour saaga bul def leen loo xamante ni mooy loolu gis nga sa soxna war nga àgg ci sa diggante ak moom caractère noble boo xamante ni su la dara naqaree moom da koy xam comprendre nga te doo saaga doo dóor am na ñoo xamante ni bu nee eey seen jabar wala ñu xool ko dong liñ bëgg nañ koy am waaw waaye am na ñoo xam ne dañuy wax yuuxu fii saaga jëngale mbéj fii saaga dóor te leen bëgg duñ ko am ndax booy bi da leen a xës yam waxuma nag bu kenn foo ak sa jabar nit ki mën ngaa kaf mën ngaa fo mën ngaa ree bu dëgg jotee nga wax ko ni kamaj bu kaf jotee nga wax ko ni kamaj waaw bu bu bu boo waree boo meree mer nga ñu xam ne mer nga ah tey sëñ bi daa mer boo giifee fàtteel boo giifee fàtteel wallaay asim ah mer moom juróomi minute doy na ci mer juróomi minute dong doy na ci boo meree ba ñëpp ni yu diw mer na nga sens ba madam xam ne yow mii nag mer nga nag ah juróomi minute nga fàttewaat ko mel ni mosoo mer nekkaat ci sa yitte waaye mer di tongoo nekk ci kër gi sa jabar ne ci néeg bi nga ne ci néeg bi ngeen bokk même néeg yéen ñaar kenn mënu cee jaay moromam lenn lu ko saf muy jëkkër muy jabar lu lan lan mën a jaayante mu safante leen ah ngeen ne ci néeg bi kii sàngu gauche kii sàngu droite te nga daan te nga daan daje ci digg bi ni dong maa ngi jégalu ak ñi ko sañ wax ah kii sàngu gauche kii sàngu droite di mer di rombante ci néeg bi gaara waalante ku ne di woyantoo ko seetaani film lu muy jariñ te nga ne yow dangaa dem takk ko may ñu may la ko nga indi ko sa kër looy tong yow nga ne yow dañ dañ la kaa ñaan nga nangu nga ni bëgg nga ñëw séyal si ko pare pour jural ko ay doom looy tong sa jëkkër ah yu bari mu ngi am ci tongo yi ak ñàkk waxtaan yi couple dafay laaj waxtaan discussion salaam maaleykum maaleykum salaam ci loo ne waxtaan ka mu kontaan nga kontaan boo meree wax ko ko bu meree wax la ko jàmm am waaye couple yoo xamante ni mer tongoo détail détail coow lu sew détail détail détail jigéen ñi mel na ñu yor fari rab ah minute bu jot ñu mer lu ñor ñu mer lu ñorul ñu mer am ci góor ñoo xam ne dañoo ñàkk fayda lu mer lu ñor ñu mer lu ñorul ñu mer musiba mbaama ku ma dong lay jur sëy musiba mbaama ku ma dong lay jur ah kon nag euh, attention waay wattu leen oh, man na ngeen di samay waay ah te dama bëgg waaw mariage yi di gën a neex sëy yi continuer di wor su bañ a am ok ah man loolu laa bëgg waay dimbali leen ma ci acca la ma digg woon laay ñëw def maa ne ah maa koo xondi maa ne woon képp ku commentaire ak foo mën a nekk ci biir réew ak bitim réew dinaa tudd saw tur maa ko wax maa ko wax te nag fii lu fi waaye diggee da ko war a def waaw kay ah kay dammeel lu fi waaye diggee da koy def ah man nag nag déet nag man nag yéen nag samay nawle ngeen nag samay nawle ngeen nag du ma ne ko commentaire ma tudd sow tur ba pare ngeen commenté ma mañ leen tudd laataa boobu ma bëggee nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo di association des ouvriers de la région de Thiès association ouvrier région de Thiès journée de don de sang la ñu amal bu mag ñoom association yi ñoom ñoo ko amal waaw samedi lañ ko fas yéene def le 13 juillet 2024 waaw ca mairie bu Thiès Ouest waaw wax dëgg yàlla association des ouvriers waaw de la région de Thiès ñoo koy amle wax dëgg fa yàlla lii moom am na solo ndax don sang moom ñépp ko soxla ah don di nag moom mooy sauver des vies nag du leneen ah don di sauver des vies ku ku mayee deret sauvé nga ak ay dunduy waay yow ah ay dunduy dunduy doomu aadama macha allah kon nag na dem mayee ji nag le la jërë ngeen def ouvrier yi ay jàmbaar ngeen association boobu kat baax na macha allah ah man nuyu sama xarit yi ah man nuyu sama xarit yi ah ma may sax may sax maa ngi lay bigi ah di nuyu Pulo dafa commentaire ah, waa Tektal ak jàmmoo gi yépp laa bëggee cat ba cat buut ba buut ñëpp bàyyiwuma kenn sëriñ Abdou Salam Sarr merci ah Habib ay Bousso maa ngi koy nuyu ah cum njool maa ngoog njoolum sama waajaa ngoog ah naar bi Cheikh waaw waaw Cheikh Saad bu mi ngi nii commenté na jox naa la nuyoo bi tey kaasu café bi jox naa la ko sédd la ko na tas na ñëpp simbaleexu Ami Jabaay sama xarit Ousmane Samb Michel Tine ah ma bigee Guèye Déthié Lo Amina Pouy Binte Sarr Baye Modou Yadd ah Abdou Kane Papa Diop Lamine Touré Papa joob Omar Diallo ah ah Omar Diallo nag liñ ñu la def metti na de ab day jaay boutique Omar Diallo nee na ma trois heures du matin démb ba bari démb maanaam trois heures du matin lañ cambriolé am magasin ca Tivaouane Peulh waa ki def lii nag nag tooñ nanu nag tooñ nanu nag sunu magasin bii ngeen cambriolé naqari nanu ah da koo bind ci commentaire yi nga naan ko wax Omar Diallo ngi nii nee na ma merci magasin à lu tax wuti leen lu ngeen am te bàyyi alali jàmbur yi ngeen di topp bala puy do ah Dame Kunta maa ngi lay nuyu ah Omar maa ngi lay masawu de Dame Kounta maa ngi lay nuyu Cheikh Cheikh Omar Diop itam maa ngi koy nuyu Mamadou Lamine Cheikh waaw Kéba Dia sama xarit Modou Laye bi un ak deux Khady Ya Khady Aan maa ngi koy nuyu Saliou Silla Serge John sama xarit Mamadou Lamine Ndiaye ah di nuyu Mia sama xarit la Dame Basel jëf Basel maa ngi lay bëggee kontaan naa ci yow ba bi nga géy sama nit la Fall Fall Café maa ngi koy nuyu Cheikh Wade di bëggee xaadim jaañ bëggub ceeb maas puy amina puy mamadou maxtaar jaañ xadi puy ah Maodo kan du sow jaw sama xarit boroom waajur ak ceneba ah du maxtaar jaañ wax naa ko moom ñaari yoon lay commentaire ki bëgg na lu yombale ah Samba Balde Lahat Diop Saliou Sila képp ku nuy teewlu dina bàyyi xel foo mën a nekk ca Gossas ca Pirum Ndëri ca Sédhiou ca Matam sa ciki joor fu waay mën ne ak fu man di doon waaye waay fekk naa la fa ni la jàpp loxo waa ma ah, maa la wax li fekk naa la fa ni la jàpp loxo kontaane leen nag kon nag mbokk ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm ak salaam jërë ngeen jëf